asalaamaaleykum seen mbokk Ibrahima Faye mooy fas yéene waxtaan ak yéen ci li nga xam ne moo yitte jamono gis-gis suñu diine incha allah. Euh, oustaz jamono ji li ko lëmbe lii mooy dialogue bi nga xam ni président woo na ko euh, maanaam ëttu politique bi euh, yow en tant que nitu diine naka nga gisee loxo boobu président tàllal ñeneen. sëñ Baye li ni mu ko gisee mooy xam nga àdduna dara mënta dox te waxtaan amul. nañ ko def boo gis nañ ko waxtaan waxtaanee jiitu e, gisin bii ma ci gis rek mooy buñ ko delloo ci Alxuraan sunu borom subhaanahu wa taala dafa ni dama jël yonent bi alayhi salaam def ko modèle laqad kaana lakum ba'da a'uuzu billaahi mina shaytaani rajiim ndax laqad kaana lakum fi rasuulillaahi uswatun hasana yonent bi mooy modèle bi sëñ Bay e, bi ci desaat it yonent bi alayhi salaatu wa salaam am nu mu daan doxee ndax daawul def dara te diisoo wut ak ña mu nekk Euh, bëri na nag lu yàqu ci jamono ñàkk waxtaan la guerre boo gis ci àdduna fu mu mujjee tour d'une table rek moo xam première guerre mondiale wala deuxième guerre mondiale euh, suñu borom it subhaanahu wa wax rasulullahi ñaar na nga na nga na nga consulté wu na nga concerté wu ci ñaari ay yi benn bi mën ko wa shaawirhum fil amri mooy consultation kenn ko koy defal na ngay seet ñi seen xel rafet te ñu màcc ca loola nga bëgg def wala nga bëgg a waxtaanee xoolal ña ci am compétence nga wax ak ñoom lay consultation ba tey mooy al amru baynahum shura seen mbir yéen jullit ñi diisoo la am na benn qaayida fiqhi buy wax ne al muslimuna inda surutihim maanaam lépp lu jullit ñi ànd bu ci alxuraan adduwul sunna addu ci lu ñu ànd dëppoo rek mën nañ ko yaxal yoon la kon àdduna lépp diisoo la diisoo googu nag man bokk naa ci ñi koy saliyee waaye nag damay bañ mu nekk xaw ma jarak des jours yooyu loolu baaxul damay bañ tamit dialogue bii mu mujj doon jàmmaarloo ndax bu fekkente ni ku ci nekk sa bopp la ñor réew mi ñor la euh, yaakaar naa ne du am résultat kon ki woote na la liggéey ju sell ak njariñal réew mi ki ji na lal yéen ju sell ak njariñal réew mi su xol yi bokkee sell rek bëri na jafe-jafe bu am ci réew mi xol yi sellul moo ko war bëri na ko naan réew mi réew mi te sa bopp rek ko ñor kon li may bokk naa ci li may ab ci di ko cautionné dialogue bi war naa am waroon naa am bu yàgg naw na toog na ba tey woote ko na ñëpp wuyu ci. mooy wuyu ji ñëpp nañ dem wuyu ji ndax wuyu ji bu ñu wuyu jiwul tuuma mën na leen a topp. ndax ki nga xamante ni moom la yàlla teg ci bopp réew mi ñëpp fal ko te yeneen échéance amagul ba xam fu réew mi mu jég moom kon mooy kilifa ak réew mi te rasulullahi moo ñu jàngaloon ni wa aati kulli fi xaqin xaqa ku ci nekk wàccuwaay woo ko sunu borom jox jox ko kon mooy président moo jaboote réew mi kon bu woowee waa réew mi ni leen ñëw leen ñu waxtaan Eh, ña mu ciblé woo leen war nañoo dem wuy ci nag. mais euh, waxtaan bi aussi kàngami politique déedéet eh, gis nga gis nga réew mi dafa mel ne dañoo dool ci politiciens yi sëñ Mbaye Samb fi ne nii ni réew mi politique yi moom doxul eh, ba ko doon élaborer nag ñoom Montesquieu ak yooyu dañ ne savoir a la cité wala comment gérer la cité fii politique nag du baax lu bon ka koy def mooy baax mu tudd politique bu baax ka koy def safaano mu tudd politique bu bon kon. ñi ko war a séq mooy mbooleem ko couche soci sociale yu nekk ci réew mi yépp kenn ku ci nekk war nañ laa woo ndax ku ci ne am nga xalaat ci réew mi yow mi am ci réew ñeneen am nañu xalaat ci réew mi dañu war a woo ñëpp ndax ñi fi politique mënatuñu asaka ci waa réew mi ndax réew mi dañ ni 14 lañu te politiciens yi nga xamante ni ñi nekk ci ñi occupé terrain bi mën nañ leen compter ci baaraam <laughs> kon ñoon duñu réew mi nañ ci boole ñëpp. ndax wala wàllu waxtaan la te réew mi ñëpp ko bokk kon am am nga jëb jër kon nañ ci boole ñëpp waruñoo yem rek ci politiciens yi politiciens yi nag war war na war nañoo wuyu ji comme ni kilifa diine yi war a wujjee comme ñi ñi ñëpp war a wujjee loolu daal laa eh, mm, mm, mm. Eh, la wax ci payu xam nga lemp moom en tant que ab financier ndax ci finance islamique dañ ci def formation euh, yoo xamante ni. moo ñu permettre ñu mën cee waxtaan ndax lu ci nekk rek eh, bu dul sa domaine waroo cee xóot ndax boo ci xóotee mën nga def juum xam nga lépp lu jëm ci wàllu finance eh, dafa am loo xamante ni l'islam da ko cautionné ndax am réew bu koy ñëpp seqee te ñëpp bëgg bëgg mu dox ku ne am nga loolu war a génne participer ko ci réew da ngay gis kuy laaj droit am te deful devoir am kon bala nga laaj sa droit da nga def sa devoir eh, fay impôt rasulullahi ba état bi njëkk a taxaw ci Madinatul Munawwara euh, am na impôt bu yonent bi daal alayhi salaatu wasalaam daan daan laaj foofu ci ci impo euh, impôt mooy ci ni ko diine gisee euh, te it boo demee sax ci ñi yëngu ci wàllu impôt yi domaine am na ci gëstu buñ ci def kii mbind yaa ngi fii ci sama wet mooy impôt bu ñuy budget eh, budget am budget budget budget république wala budget état du xaalis bu nekk trésor public déedéet yu ñuy envisager la ay taxes yu war a dugg la mooy sëñ Bay Samba boo jëndee almet 18 pour cent yi ci kees ga la jëm loolu impôt la fi ne nii sa oto bi carburant boo boo boo jëndee eh, carburant litre ba ñu jël ci 18 pour cent 100 francs yi nañ jël ci 18 pour cent loolu impôt la fi nekk nii eh, boo jëndee saako ceeb taxes yi dugg. kon budget réew mooy la waa réew mi di bokk di cotiser di ko jox état ko ñun kenn ñëpp ñu ko bokk gérer fokk ñu jox la ko nga gérer ñu ko waaye nag nañ defal ñu ko ci sunuy aajo boo ko def ci sa aajo defal ñu ko ci sunuy aajo lan mooy sunuy aajo mooy war nañoo jàng kon utul utul ñu ay école ak i CM ak i lycée ak i université ak i daara alxuraan war nañoo faju utal ñu ay hôpital ak i dispensaire war nañoo tukki dem ak dikk utal ñu yoon ay yoon war nañoo leerlu fexeel ba courant bi doy ndox ku nekk war nga koo am fexeel ba ku nekk ndox ma ñëw te mu am qualité impôt yi foofu la war a dugg ci tey nit ñi kon ku ko mën a joxe te joxe ko yaa ngi lor réew mi. yi nga wax moo waral sa waaw yii ma wax boo déggee kàddu gi ma fa jël <coughs> man sama sama débat lim fi ma koy campé mooy ci lu neex yàlla yonent bi alayhi salaatu wasalaam dama ko campé ci li neex gaañ ndax wóorul ndax gaañi danañ dem baa nga dem waaye ki fi dul jug mu suñu borom subhanahu wa taala bi ma déggee lii ñuy invité ma ba pare jëlloo ma fa kàddu en tant que ku yëngu ci finance islamique en tant que nituk diine en tant que ab jàngalekat yi teg ma ñëw fa waa impôt yi domaine jox ma kàddu nii ma dañoo bëgg gisuñu lislaam en tant que financier ci ci impôt yi domaine ma wax ca la ma ca xam te lépp dëppook lislaam looloo waral sama teewaay foofu keroog ci bi ñuy inauguré di ubbi journée bi boo xamante ni dañuy vulgariser njariñal impôt yi domaine ci réew mi te ñu war ko ubbee Thiès ma bokk kilifa yi bokk ci ñi ñi mu woo ñu war a intervenir moo tax impôt c'est mais si obligatoire waaye ki ko war a def mooy état ñi ko war a defal mooy ñi ko war a génne te génne ko ñi ko war a génne di ko génne moom jotutu ñoom dara ñi génne te génne ko waaye it buñ ko génnee ah nañu ko defal nag fa réew mi soxla buñ ñu ko def seen aajo wax dëgg fa réew mi soxla. waaw li li li xam nga bu fekkente ni eh, dangay digle. jiitu ci waay kuy digle sangaay na fexeel ba set ensemble ensemble bu fekkente ni génn ko te ki ko wax ab inspecteur impôt yu demoon la indi ay argument yu leer assemblée tamit tontu nañu kon muy ñaari wax yoo xamante ni ñi naan bii moo moo am bii ak lu mën a xew ñëpp la état teg ñu war a génne impôt ñi ko war a génne nañ ko génne ñi ko war a génne te génneeguñ ko nañ ko génne ndax réew mi aajo woon na ko ko assemblée génnee ñoom xam na yàlla xam nañu yàlla xam na waaye li wértu wóor dal mooy assemblée gi nag mooy digle ak càngaay na ci jiitu moom waaw wur ñu wax muk amel na impôt dara te la état war warloo assemblée du huit milliards at bu jot ñu woote leen ko jox leen ko kon ñu lañ waral suñu impôt yi war nañ ko jox nag waaw waaye nag néew ju doole ñu leen defee fay loo impôt almet sax boo ko jëndee fay impôt ceeb boo ko jëndee fay impôt te Sénégalais bi koy jënd kon ñi nga xamante ne ñu ngi leen di fay ci suñu ci suñu koppar dañuy rencorer ba baadoor mooy si njëre yi buur waaye loolu dëgg la ñu leen di fay ay millions te mënuñoo génne impôt waaye ndax dëgg yàlla gàcce la nag yaa gàcce la moo tax nag sunu euh, sunu sunu barab yi war nañ koo xoolaat waaw war nañ ko xoolaat bu baax te saytu ko saytu it nañ cay nekk parce que nag euh, euh, war nañoo assainir. Euh, terrain bi waaw war nañ ko assainir bu baax a baax.